asalaamaaleykum gars yi si Mouhamed Ndiaye 222 tey dama ñëw pour wax ak xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy connecté wu si orange ñuy connecté wu si orange ñuy jënd connexion wala ñuy jënd crédit orange tam ay promo yu mu leen di may promo yooyu nag da si mën a jënd crédit da si mën a jënd connexion te sa xaalis du dem ay promo la maanaam point sargal lañ koy wax bu ñëwee da ngay dugg téléphone boo téléphone nga def dièse 221 dièse nga tapé bëgg naa ngeen aman te partage vidéo bi boo ñëwee fii 3 ngay def 3 boo defee 3 gis nga fu mu lay indil boobaa nga bës 1 nga bës 1 suivant boo bësee 1 nga bësaat 1 tamit partage leen te ngeen léegi nag mi ngi nii boo bësee 1 boo topp tegtale ba si fi da wax ñaata nga am si point sargal man nag dama ko dugaloon moo tax même bu dee piis bees tamit nga am dañ lay may point sargal 914 léegi man dugaloon naa si léegi nag lii moo ma dese bi gis nga loolu desene yi si ngay mën a sukkandikoo pour mën a dugal léegi nag bu fekkee minute d' appel crédit nga si bëgg a jënd da ngay def un fekkee nag passe internet nga si bëgg a jënd da def trois léegi nag passe internet la si bëgg a jënd man damay def trois internet maanaam mooy connecté wu nga si mën a connecté wu léegi nag mi nii boo si amee cinquante mooy un boo si amee cinquante da nga si mën a am soixante quinze mots ay yooyu noonu gis nga ba deux cent nga am si quatre cent mots par semaine lu nekk mi ngi foofu léegi nag fekkee da bëgg am nga lu ëpp ay deux cent yooyu fekkee am nga loo ay deux cent da ngay bës suivant mooy quatre ngay bës mooy delloo yu gën a bëri yaa ngi gis quatre cent exemple man am naa quatre cent quatre cent point sargal léegi man quatre cent yi mën naa koo dugal su ma ko dugalee un cigare laay am une semaine léegi nag fekkee am nga mille francs tamit deux cigares lay doon un mois yaa ngi gis deux cigares doon un mois fekkee fekkee am nga si deux mille deux mille point sargal fekkee am nga ko day mën a doon sept cigares un mois partagé leen te ngeen abonné exemple ma ñëw nii 4 comme ça am naa 400 ma bës 4 gis nga boo bësee 4 gis nga da lay indil nga confirmer boo confirmer rek mu jàll nga am connexion c'est simple partagé leen te